Euh, flag bi xam naa ñeneen ni suñ ko gisee dinañ ko xàmmee waaye ñu ko xamut pour moo wax leen ne mooy yi euh, boo gisee tey ma ma dem ba tokki euh, suñ gambien yu fa nekk la suñ broda yi suñ sista yi ñu fa ñu ngi sonna su ma ne sonna moo nekk ne dañ fa dem pour daan seen doole ñu bàyyi seen yi kër ñuy bàyyi seen doom yi foofu ñuy bàyyi seen jabar yi ñuy bàyyi seen famille yi ñu ngi tokki waaye ndax Gambia government ñu ngee dimbale gaay lii mooy lacce bi parce que ni ku nekka sa am euh, am embassy bi moo la war a taxawal foo nekk noonu waaye ñii eh, joytu nañ torop su ma ne joytu nañ moo nekka ni coono bu nekk di daj tokki ñoom rek a ko xam parce que amuñ kayit te ku ñu xamul Turki eh, maa ngi doon waxtaan naa suma xam benn xariti Turki tey bu ma ko expliqué lu ma wax moo nekk ne seen nguur gi ñoo war a taxawal gaay so ñii ñu ngi fa lu gën a yéemuloo affaire bi moo nekk ne ambassadeur bu fa nekkoon noonu mooy Serigne Modou fu naa léegi mooy ministre de défense ñu ne kii mu leen jàppaloon torop waaye kuñ fa isi léegi xaw ma almaam mi alkaali konte kii boppam la fa nekkal kii faalewut gaa yi ñoom sax xamuñ ko gis nga man bu ma laajte turam bi sax gaa yi dañu mun a dem ñu laajte di seet ay google pour ñu mën a xam turam bi dafa daw yaram yow ñu tax nga nekk foofu noonu ñoom ñoo tax ñu laa fay waaye yow nekkuloo di dimbale ñooñu ñii ñu fa. ñu ne yenn saay sa naar yi dañoo liggéey liggéeyloo gaay te duñ leen fay parce que xam nañ ne duñu dem police amuñ kayit parce que soo demee police dañ laa téye yenn saay da nekk di dem liggéey sa police yi la dañ laa tëj six months soo lokkee ñu tëj la three months te soo paree yaay jënd sa boppa ticket ñu déport la te ñii liggéey bi mooy mën a tax ñu dunda parce que soo liggéey foofu tokkit melul comme Europe soo liggéeyut doo am looy lekka waaye Gambia government nekkuñ di dimbale gars parce que Sénégal ñoom ñu ngi sonoon waaye Macky Sall bu mu fa demee noonu mu waxtaan ak gars yi ñooñu ñu ngi am kayit nice ñu ngi liggéey nice waaye Gambia government baro man dama foog ne ñun suñ problème Gambia rek la am waaye laal na Europe te doomi Gambia yu nekk Turquie sax ñu ngi daan seen doole ñoo ñëpp ñu ngi sona foofu noonu. lii mooy part one part two bi dina ñoom parce que am na yu bari yu ma war